Fafa TV. yéen a ngi fàttaliku nettali suñu suñu rakk ji Seex Ndaw mu ne bi ñuy nekk gune di yelwaan ci njaareem dañoo dugg ci genn kër fekk boobu jamonoy mbas la woon ku ci mbas nii dañ lay yóbbu ci ruq di la fa indil sa lekk gune taalibe yi bu ñëwee ci ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbas mi dañuy sàcc liñ leen di lekk yi leen di jox dañ koy sàcc di di ko lekk am ci góor gu baax boo xam dafa ñëw fekk xale yi sàcc xale yi taaliba yi sàcc li euh, xale bi desaloon ci mber mu ne ko ana ñam woo mu ne ko taaliba yee ko jël mu ne ko taaliba mu ne ko taaliba yi gën sëñ Mor yi mu ne ko mu nee nañu mu ne mu génn rek taalib wotom yaakaar na ne xale yi dee nañ bi mu ñëwee wax ko sëñ Mor ne ko teg sa xale yi day dangay seet seen yalwaan yi daf ci am koo xam ne dafa jël lekkum ñee nga xam ne dañoo jot ci mbas mi sëñ Mor ne ko dara yàlla leen di aar <laughs> bàyyi leen ñu lekk yàlla leen di ar gis nga ko de xale booba ndeysaan dee dee na ca mbas ma waaye ka ñëwoon moom sax ci lekk ndesit wa lekk ko moom ma nga gàddu papatam di topp mbedd di jaare mi di yelwaan dem ak a ñëw mu gis nga nii ñu ñuy bëgg a terroriser bëgg ñoo yàlla gi nan ko làkk nan bañ ndax mbir mi kat day niru nag leneen dem ba duñu ragal loo corona ba far ñu ñeme loo yàlla man de loolu laa gis léegi waaw te corona yorul ndee yàlla yor ndee dem ba duñu ragal loo corona ba bëgg ñoo bàyyi loo symbole yu mag yii di jàkka ak jumaa yi yépp ngir ragal lan parce que fa corona mu rey ñu corona yorul sunu bakkan déedéet te li ma jaaxal ñoom jàkka yi rek la ñuy wax aouzu billahi min alsheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu ñëpp ci biir réew mi ci biti réew mi mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp tafsir bi ci Fafa TV di ñaanal ñëpp jàmm yal na suñ borom subhanahu wa taala musal ñëpp ci li nga xam ne ñu ngi koy dégg ñim jota daal yal na yàlla saafara leen yi ñett ñàkk seen bakkan yal na suñ borom wërsëgal leen shahada fi sabilillah weeru koor wi yal nañu yàlla nangul taxawaay yi nangul ñu koor gi li ci digge woon ci yërmande ngërëm ngërëmam njéggalam ngoral ci sawara lépp yal nañ dajjal ak moom kon tey incha allahu ñu ngi dugg ci saar wu ñuy tuddee suuratul fiil saar wi baatub ñay lañ ko tuddee alfiilu mooy firi aw ñay ñay wa lan moo tax ñu tuddee ko ñay wa mooy xissa bi ñuy bëgg a dugg muy buur boo xam ne bu nekkoon fële ci Éthiopie la Éthiopie nag mu ngi mel ni booba suñ ne alxabasatu mu ngi mel ni ñu ne Sénégal alxabasatu bu ñu ko waxee mooy ñu ne Sénégal Sénégal nag Casamance ak euh, Kaolack ak Dakar ak yeneen fukki résion yeeg ñeent yépp fenn fu ci nekk barab la ci Sénégal boo waxee Sénégal rek ëmb na lépp loolu la baatub Éthiopie mel alxabasatu <clears throat> empire la woon boo xam ne dafa ëmboon réew su ndaw si ñi tuddee tey Éthiopie ëmboon Bahreïn ëmboon as tuut ci saam ëmboon yaman réew yooyu yépp kilifteefu Éthiopie moo fa lawoon mm-hmm. saar wii nag nuy bëgg a jàng ay xéewal lañu ci suñ borom subhanahu wa taala di wan xéewal yoo xam ne defaloon na ko Qurays ci wëlbati gum wëlbati woon seeni noonu yoo xam ne dañoo dogu woon pour dem toj kaaba ga jëlee ko ci kaw suuf mhm. ke leen jiite woon moom lañ doon tuddee abrahatu alxabashiya maanaam abrahatu moom Éthiopie ma kay ko jóg Éthiopie mhm. xew-xew bi mu ngi xewoon ci at mi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gane àdduna ci la xew-xew bi am mhm. ñu ne xew-xew bi lan la woon benn buur buñ doon tuddee Zu Nuwaas Zunuwaas borom doole la woon yilifoon barab yooyu ñu wax yépp Éthiopie ak Ximyar ak euh, Yaman ak ba ci li ñu tuddee tey Érythrée moo tax ñu tuddee woon ko empire al imbaratouriya moom Zunuwaas mii bu leen fàtte ne danañ dem ci kanam tuuti do jot wenn saar wu ñu tuddee suuratul uxdud saar woowu suñ boroom di fa jaale ay gaay yoo xam ne dañ leen a defoon lu metti taaloon ay kàmbi sawara di leen ci dugal pour pour teqale leen ak seen diina kon méttital nit ci diinaam yàgg na fi mhm. moom zunuwaas mi nag jëfoon jëf ju ñaaw jooju nee ñu mooy mujjug buur ci buur yi ñu doon tuddee alu ximyar moom ceddo la woon dañuy wax ne wa huwa allazi qatala asxaabul uxdud wastaqalla alxabashata ah, bi mulkil yaman moo yili yilifoon xabasha da ca nguur ga ca yaman bi mu faatoo nag ñaari buur xëccoo nguur ga muy ariyaat ak abrahatu wute ci seen biir ba nara songoo pour xeex te nguur gi di genn moo tax ñoom ñaar ñu mujj déggoo ci ne nanu daje ñoom ñaar ku ci rey morom ma yilif réew mi au lieu réew mi di tas ñu koy def ñaar loolaa indi ñoom ñaar bi ñu liwaatoo e, ariyaat e, caw ko caw yu metti nee ñu ba njoof bakkan ba dóor ko jaasi ci jë xar xar jëba waaye teewul abrahatu rey na ko moom ariyaat boobu looloo waral abrahatu mujj nekk buur E, foofa ci yaman nekkoon fa comme li ñuy tuddee gouverneur tey ki daan jiite tund wi lépp nag moom lañ doon tuddee an najaasi yu najaasi yu mooma moom mooy nekk ca capital ba muy Éthiopie bi mu tëkkoo abrahatu ci xëccoo googu ñu xëccoo yaman ba xaw caa reyante ñoom ñoom ñoom ñaar ñooñu ba kenn ka rey morom ma sax la wax ngeen baal ma abrahatu dafa jébbulu jéggulu jébbulu jéggulu yónnee ay hadaaya yu bëri najaasi yu mi nga xam ne moo jiite coppi muy président bi mu ngi mel ni ñu nekkoon ka nekkoon Kaolack yónnee ay hadaaya ay kado yu bëri ki nga xam ne mooy euh, président wu réew ma nee ñu mu wat bopp ba jël kawar ga def ko ci benn sàkkoos pour wan buur bi ne ko moom fipp ba tey jii tey la gën a nekk ci ron kilifteefam ñu ne lu taxoon mu jël euh, kawar ga wat ko yow boole kook alal ju takku yónnee ko najaasi yu mooy pour xamal ko ne ko tey tey la gën a nekk ci kilifteefam comme najaasi yu tëkk woon na ko neen na ko danaa ñëw ba fekk la foofu jël sama tànk bi teg ko ci sa kaw bopp bi maanaam danaa la joggi loolu moom kuñ daaneel lañ koy def ci la ko ñaanee nag ne ko sama kawar a ngi doonu joggil ci kawam mu mel ni la nga waxoon def nga ko man maa ngi ci soroon kilifteef tey laa gën a nekk ak yow te it nag wan ko ne ko danaa la defal loo xam ne sax dana sedd sa xol muy kaaba ga la ñuy dégg ca Makka danaa dem danaa tabax ci fii ci ci ci Yaman benn pale bu ñuy tuddee al Qullays Qullays ñu ne li tax ñu tuddee ko Qullays dafa am rapport ak xalan suwatu ngir kawe gum kawe woon nee ñu boo koy xool nii mën nga koy xool di xool jëm ca étage ba mujj ba sa mbaxana mi nga sol daanu xalan suwatu mooy firi mbaxana ñu far tuddee pale bi Kulays mu ngi ko tabaxoon ci dëkk bu ñu tuddee Sanaa Sanaa ba tey jii mooy capitalu Yaman foofa lañ defoon pale ba ay ndawi arab dégg loolu am ca lu leen naqari ñëw Sanaa bi nu ñëwee ne dañoo gane si buur bi abrahatu mu dalal leen ci pale bi ñu bàyyi ba guddi jot ne ñu fekk na ñu ngi ñu ngi préparé ay mbir yu ña yu bon ay ay yu doomu aadama lañ jël def ko ci pale bi riix ko ci ñu ne guddi googu yi dafa tombi woon nag mu nekk guddi ngelaw ngelaw lu bari ñu dajale lu bari ci matt ci guddi gi def ko ci biir pale bi taal ko daw ci guddi gi dem ñibbi kon pale ba mu doon neexale najaasi yu foofu la mujj loolu nag naqari leen lool najaasi yu jox ko ndigal ne ko na dem mën na dem toji kaaba ga kon abrahatu moom da doon dox ci kilifteef nee ñu bi muy ñëw dañ koo jox lël bu mat sëkk am na ca biir lël ba lu mat fukki ñey ak ñaar dëkk bu ñu romb la fa di njëriñ lépp dañ koy buub yóbbaale armée bi dafa réyoon ku bañ ñu jàpp la def la jàmm bi leen waa Màkka yi déggee xam ne foofa la jëm si te mënuñoo dékku mënuñ leen a dékku ah la leen Abdul Muttalib nag wax ne ñii mënuñoo jàmmaarloog ñoom ndax doole yi méngoo wuñu kon man li ma leen di diggal mooy na ngeen génn dëkk bi bàyyi leen ak dëkk bi dëkk bi am na borom comme ñoom kaaba gi lañ wax ne lañuy ñuy toj si néeg bi néegub suñ borom la subhanahu wa taala ah, ka ku ko tabaxaloon mooy xalilullahi ibrahim aleyhi salaatu wassalaam ci gàttal nee ñu bi mu ñëwee bay jub màkka tase naag jur gu bari mu mu mu raafal jur ga lépp pour dundalee ko armée bi bi ànd ak moom ca biir jur googa bokkoon na ci ñaari téeméeri gëléem yoo xam ne nee ñu Abdul Muttalib moo ko moomoon bi sàmm bi ñëwee xamal ko ne ko buur ba jël na jur ga Euh, loolu nekkoon naqar wu rëy ci moom mu mënta faj abrahatu bi mu ñëwee ba jub màkka nee ñu dafa dafa dal maanaam campé yónnee ne dafa bëgg a gisee ak ki nga xam ne mooy buuru makka maanaam kay kay kay ka fa gën a tedd ah booba abdul muttalib mi moo fa nekkoon mag mu ñëw wuy si ko bi mu ñëwee nag abrahatu xamal ko ne ko ñun ñëwuñ pour xeex ak yéen waaye dañoo ñëw pour toj si kaaba gi xeex ak yéen taxul ñoo jóg toj kaaba gi moo ñu tax a jóg aj gi ñu fi doon aj ñu jeexal ko abdul muttalib ne ko ah man de lenn ma indi mooy sama ñaari téeméeri gëléem yi njël laa bëgg nga delloo ma ko abrahatu wax ki nga xam ne moo leen doon làppatoo maanaam comme ñoom duñ wax waxuñu woon arab abrahatu duy wax arab làmmiñu éthiopie lay wax mu ne ko man day waxal góor gi ne ko bi ma ko gisee dama ko yéem lool ak dara gi ji ma àndal waaye bi muy demee ba ci mujj gi dama koo xeeb lool ngir lan gëléem yi muy toppatoo te man ma ñëw pour toj ci néeg bi nga xam ne mooy symbolu seen diina muy toppatoo mbirum alal tuuti na torop ci man mhm. abdul muttalib na ko waaw man gëléem yi laa moom néeg bi nag am na borom mën na koo aar inna lil bayti rabban lu ko sax mooy inni ana rabbul ibili wa inna lil bayti rabban sa yamnauhu beneen bi ne sa yaxmihi ne ñu mu wax euh, dag yi ne leen delloo leen ko ay gëléemam ñu delloo ko ñaar téeméeri gëléemam nee ñu keroog abu abdul muttalib gaaral na abrahatu ne ko soo bëggee lii tund tihaama tihaama lépp du màkka rek waaye mboolem li wër màkka te bokk ci àtte màkka soo bëggee mën nañ laa jox li fiy alal mën nañ ko xaaj ci ci ñetti xaaj jox la ceer ba pour nga dëpp loolu gaaral na ko ko mu xamal ko ne ko alal taxut maa jóg paj néeg bi moo ma tax a jóg booba nag la xam ne moom Abdul Muttalib xam ne kon kii li li mu dogg li ko tax a jóg dogu na ci mu dellu si waat wax waa Màkka na ne leen fi kenn des bi yow ngeen dellu ci dem ci doj yi làqatu ji lay ndeysaan mhm. mu ngoog nee ñu Abdul Muttalib bi nga xamee ne nit ñi génn nañ mu mu dem bay waaj a génn xoolaat kaaba gi ne na ko xool xooli xoolin wu mujj comme doole ñëw na ne da koy da koy toj mu ñëw ba ci kaaba gi jàpp nii ci xalqa bi ci lamu kaaba gi daldi woy wenn woy ne laahumma in nal mar a yam nau raxlahu fam na xalaalak eh, yow sama borom nit ki day lam moom muy alalam suñ ko bëggee jël ci loxoom da da koy da dana xare ba def ca bakkanam léegoo léeg yow nag sa néeg bii nga xam ne yaay borom muy sa moomeel gëm nañ ne na nit di aaree alalam nu ko raw mën nga ko aare sa néeg bii yàlla nga aar néeg bi nee nañ lii la mujj def jàpp ci lamu kaaba gi woy woy wi daal di génn dem làqatu ji suba googu ñu xëyee génn màkka suba googu ci la abrahatu war a dugg si pour toj kaaba gi nee ñu mu ngi woon ak fukki fukki ñay ak ñaar am na ci ñay wu mag woo xam ne moom ñayu boppam la ñu ko doon tuddee Mahmoud bi ñu xëyee suba euh, bëgg ko ràng yëkkati ko ràng ko ba maanaam teg teg gi ba ba mu pare ñu dàq buur bi yéeg ñu dàq pour mu jëm boori màkka ñay wi bañ daal di tëddaat mhm. nee ñu booba am na benn arab boo xam ne fexe na ba jaxasoo ci biir armée bi ñu ko doon tuddee nu faylu ibnu Habib ci armée bi bi bi mu ñëwee ba sës ci ñay wi daf ko déey ne ko ubruk mahmud warji rachidan min xaysu jiit fa innaka fi baladillahi alxaram mu ne ko ñay wi boofal de bul nangoo jublu màkka dellul fa nga jóge woon ndax suuf sii nga dugg eh, fi la néegub suñ borom bi nekk neeñ ba waxee loolu am ñu ko dégg bi ñuy dem di ko kalaama jeeg buur bi la la daw moom moom moom nu faylu moomu dàq fasam daw daw xel yu métti bu rëcc fekki xuray su ci seen barabi làqutookaay ya ci gàttal daal Mahmoud lànk na dóor nañ dóor dóor dóor jam fu mu jëm màkka mu lànk te yeneen gox yi fu ñu ko ci jëmale mu nangu bu ñu jëmalee ndeyjoor ca mooy gannaaw yëpp mu nangu fenn rek la nangu wuti jëm mooy wàllu néeg ba ñu nekkoon loolu mbirum suñ borom la subhanahu wa taala mhm. fi ñu nekkee nag ci xeex ak ñay wi pour mu dem ñay wi di bañ ñu di ko méttital ci la suñ borom subhanahu wa taala yebalee ay ay picc nga xool mbokk yi picc picc ni mu tuutee waaye ña nga yor ay doj doj yoo xam ne doj yi sawara la ak sawara ak nam tàngee picc mën koo yor te du ko lakk loolu njàngale mu rëy la moo tax suñ ne suuratul fiil rek yooyu yëpp dafa war a teew ci suñ kanam ñu déggee ci ne a ah, kon ndeke Ah, la doomu aadama miinoon di sabab loo ci def nangam nangam ja daan am lu mel ni ki sawara moo daan lakk loolu lañ xamoon kon teg sa loxo ci sawara sabab la ci lakk léegoo léeg suñ boroom ci kàttanam ak man-manam danay dàq sa sabab yooyu ci barab wéel ko ci barab gis nga dàq na sabab yooyu ci picc ya ña nga téye sawara ya di naawaaleeg ñoom te lakkut leen picc mu ci nekkit suñ borom da koo xamal ne ko armée bële militaire sàngam laa la booleel maanaam soldaar sàngam laa la booleel nga xool wa maa yaalamu junuuda rabbika illa huwa yàlla daal moom rek a xam armeem bi nu toll ay picc ñu xamal leen euh, immatriculation yoo xam ne ñoom armée ba ñoom mënuñ koo gis waaye picc yi ñoom jox nañ leen tab tablo tablo yi nga xam ne day ñëw ba tolloog militaire bi ko taxoon a jóg mu jël doj wa dóor ko ca bopp ba te benn doj moyut waaw benn doj moyut doj bu ci nekk kañ ko kañ ko yabal ca la dem nee nañu doj yi bi ñu wàccee ci boppi lël bi lël bi mooy arme bi lañ commencé di daanu par mbooloo ndax doj bi buy dugg ci bopp bi rek day daldi tas yaram wi yaram wi commencé di daggutoo di rot maazallah mbokk yi loolu xissa bu yéeme la mbir mu yéeme la te ci at boobu kat ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga ne àdduna mu nga nee ñu ñu noonu lañ def armée bi di ko def armée bi ba mu des abrahatu ak ñi ko waroon nga xam ne mooy kilifa yi ñoo ñoom dañ leen a muñal bàyyi leen ñu ngay daw nag mhm. mu ngoog ña daw nee ñu bi ñuy daw nu fay lu waxoon ñay wa ko bul dugg màkka de néegub yàllaa fa ne nu fay lu moo nettali nee na ñun bi picc yi wàcce ñu ñu ngi leen di gis fañ làqutu bi ñuy daanu benn par benn di def ay néew nee na ñu ngi jàkkaarloog ñoom keroog la woy woy wii ne ayna almafarru wal ilahu taalibu wal ashramu almaglubu laysa algaalibu tey nag ana ana rawuwaay ayna almafar fu ngeen daw jëm ndax daw tax naa rëcc tey ki soxla tey yàlla la mhm. ki soxla tey yàlla la allahu akbar wal ilaahu taalibu yàlla moo sàkku tey ne diw ak diw ak diw ak diw fii lañuy des càkkuteeful yàlla loolu ku ci mën a rëcc wal ashramul maglubu boroom bakkan bu joof ba gis nga bakkan ba eh, waxoon nañ ne ba muy xeex ak ariyaat ca lañu njoofoon bakkan ba moo tax mu ne baram bakkan buñ njoof ba yoroon doole ja daan note ah tey day yorul noteel noteel a ci loxol borom bi tabaraka wa taala ba tax wallahu gaalibun ala amrihi walakinna aksara naasi laa yaalamuun noonu la suñ borom mel mbokk yi wallahu gaalibun ala amrihi yàlla not saa yu ah, nammee noteel noteel ay keroog de wallaahi mhm. mu ci gàttal noonu lañu def picc yi rey leen ba ñu jeex tàkk waaw doj wa picc koy yor waaye bu rotee ci jëmmu tas ko kon doj wa du lakk picc waaye bu rotee ci jëmmi doomu aadama lakk ko njàngale mu réen ci de suñ borom subhanahu wa mooy koo kii ataa ibnu yasaar nee na bi ñuy dem ci yoon wi <clears throat> di daw ñoom ña desoon muy buur beeg ñi ko wër di kàngaama yi bu ñu doxee ab diir rek benn sifo bu xaw a gudd rek suñ borom dana jox nangami picc na leen dem leen ngeen rotal ko ci diw ak diw ak diw ñuy wàññeeku rek ni ñuy gën di jege seen capital ba ñuy gën di wàññeeku yatasaqatuuna udwan udwan wan hum haribun nee ñu abrahatu mii nag bokkoon na ci ñi nga xam ne moom dem na ba àgg ca réew ma nga xam ne mooy billaa du xas am fa la jógee woon ba mu àggee nag ba commencé joxe compte bi di wane armée baag fañ yem na na leen suñ borom def la am ay picc yu yu naaw nii nee ñu mu joxoñ picc yenn picc yu mel nee de la ñoo jeexal suñu armée bi bi mu ne picc yu mel nee la rek picc ma rotal doj wa ci kawam moom nag suñ borom da caa def kéemaan daalu daal faatut ko ca saasa da ko fa bàyyi nee ñu yaram wa di funki di funki ba tollu noo xam ne kéemaan la li ci biir lépp yàqu suñ borom nag commencé di ko seeyal yaram wa muy seey di seey di seey di seey ba boo ko tiimee buñ ne laa kii mooy abrahatu borom doole ji fi nekkoon déedéet dafa mujj jeex tàkk ba des ay yaxi kese di rot rek yaram weeg boppam moo doon dagg di rot waaw di dagg di rot di dagg di rot kon dey nu métti la dee deyin woowu mu dee niroo na ak lool wi charun Ariel Sharon euh, dee woon moom itam gis ngeen ko bañoon lislaam la moom daan wax ne li ko gën a ci kaw ci kaw suufam mooy gis jullit waaw gis jullit nee na li ko gën a métti ci kaw suuf rek mooy jàkkaarloog benn jullit ak seen sikkiñ yi seen melokaani foofu la suñ borom mu jeg moom nee ñu dem na ba mu jógi dënn bi li ko li nekkoon ci dënn bi lépp euh, dafa mujj àjji ko yax ya des fa kon déegu métti googu la abrahatu dee loolu nag la la alquran di nettali fii ci saar wii nuy bëgg a jàng tey muy suuratul fiil ci gàttal bismillahi rahmaani rahim alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil suñ boroom subhaanahu wa taala di wax ak ñun jaaree ko ci sunu kilifa ñun ñépp di rasulullahi sallallahu alayhi wa ne ko alam tara gis nga raa jii firi gis ci la yaraa taraa bàyyi ko mu daa muy mu bi ñu dugal ci lam ji muy xarfu nafyin wa jazmin muy lam tara euh, moo tax ñu ñu xarfu ràgg wi mu nekk màndargam jasmu mi muy bu des alam tara xanaa gisuloo alam tara nag ci alquran foo ko gis mooy alam taalam xanaa xamuloo ñu ne waaw lu tax suñ borom subhanahu wa taala di bàyyi alam taalam yu fu bari di ko remplacer alam tara dafa am lu muy jàngale mhm. moo di ne xam-xam bët dafa ca di njumtukaay lu am solo ñii sàkku xam-xam xam nañ loolu ndax booy ijji ci lañ lay wane araf yi nga di ko xool xàmmee ni lii mooy alif ba ta ba mu jeex ci lañ lay wane maska ya nga xam ne lii mooy fatxa lii mooy kasra lii mooy damma lii mooy sukkoon ba mu jeex noonu nag ngay commencé di jàng baat ya bët njumtukaay bu am solo la te dañuy wax ne xeeti xam-xam yi bari na ci yoo xam ne dañ la koy liyaar dañ la koy liyaar di la ko misaal waaye am na ca yoo xam ne nag sa bët da cay tegee liñ la liyaar ak li sa bët tegee du lenn maanaam niveau yi du benn waaw niveau yi du benn bi sa bët tegee kooku moom lañuy ñuy tuddee aynul yaqin mhm. mën ngaa xam dara mu wóor la ne xam naa ko nii laa ko xamee waaye gisaguma ko nag comme ñun ñii tey xam nañ ne aljana am na waaye aljanna gisaguñ ko waaye kenn ki ñun sikki sàkkawul am na moom ilmul yaqiin lañ ci am xam-xam bu wóor ah, boo demee nag ba suñ borom ci dogalam ci sa mujjug dund mu yebal ay malaayika ñu ñëw ubbi bunti aljanna yaa nga jàkkaarloog ñoom bu ko defee foofu wa abshiru bil janna daal di ñëw inna allazina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala taxzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tuadun foofu nag la ñuy gisee aljanna jàkkaarloog moom xam nga foofa moom tuxoo nañ ci ilmul yaqin ñëw nañ léegi ci aynul yaqin jàkkaarloo nañoo moom suñ bët tegee ca nag bu <coughs> defee bët foofa lay door a gëmee maanaam foofa lay door a amee xam-xam boo xam ne xam-xam bu bët tegee la moo tax suñ borom di jël léegoo léeg baatub raa di ko di ko remplacer palaasu alima xam na mm-hmm. ñoom ñaar ñépp xam la waaye bii dafa gën a foor yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gisutoon loola fekkee wut ko woon ndax at boobu ci la gane àdduna kon moom gisut ko woon waaye nag déggoon na nit ña daan ko nettali gis nga moom ci la gane àdduna waaye booba ay magi juróom fukki at ay magi juróom ñaar fukki at ña nga fa teg seen bët ca mbir ya moom tegu ci bëtam waaye magi juróom ñaar fukki at yaa nga fa ak lu ëpp loolu sax teg seen bët ca mbir ya ñoom nu fay loog ñoom abdul muttalib ak ba mu jeex ah commencé nag aas ya di wàcc magi juróom fukki at ñeent fukki at fanweeri at ñaar fukki at ndaw yi ñaar fukki at ba fukki at ak juróom ñoom ñépp gis nga tranche boobu yépp teg nañ seen bët ci mbir mi moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg la gisul mbir ma waaye dafa dund ak ñu gis mbir ma dundak ñoom ñu ne ko ñun keroog ba mbir mi xew ñoo ci teg suñ bët ci teg bëtam nag ca mbir ma bu la nettalee day mel ni yow teg nga sa bët ca mbir ma moo tax suñ borom subhaanahu wa taala ah, la waxut ko ne alam taalam ne ko alam tara mu mel ni dafa fekkee woon mbir ma teg ci bëtam xanaa gisuloo yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kayfa faala ana naka la jëflantee woon rabbuka sa borom bi ashaabil fiil ci ñooñ ñay wax mooy mahmud moomu ñu doon nettali léegi ah hakkay tegut ca bëtam de waaye dund nag ñu ci teg seen bët toxal xabaar ba jox ko ko suñ borom nag lu tax mu koy nettaliwaat xissa xissa boobu moo di ne jàmmaarloo bu amoon la diggante buurub yéefar bu mag bu amoon doole ak néegub yàlla ba subhanahu wa taala nga jàmmaarloo la woon saar wi dañuy indil benn jàmmaarloo bu amoon diggante kéefar ak liimaan mhm. liimaan mooma nag ñu yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ñëw pour war koo yeesalaat ya ca taqoon yépp mu nettoyé ko moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon day dalal xelam mhm. day dalal xelam ci ne ko sama néeg beekat nga xam ne buurub yéefar bee ak doolem juréy jëm yoroon bañ jógee pour ñëw màbbu si ko maa yebaloon picc ya ñuy ay njanaaw yoo xam ne e, kenn xamul fu nu bowoo ñu ñëw faagaagal lël ba waaw faag ay picc ñëw faagaagal lël maanaam armée nga fan yi ñuy toll yaakaar naa ci YouTube bi yéen a ngi gis ay picc yu xaw a maanaam ay ay xeeti mbóot yu yéeme yéeme yéeme yéeme yéeme dañuy naaw dañuy mel ni soccet ñu dugg si nañ côté end bi bu leen nit ñi gisee dañuy daw yaakaar naa yéen a koy gis ci bi de dafa xaw a yor bind bu mel ni bindu bu waaye moo ëpp yemb fuuf suñ borom da da da yem commencé na leen di feeñal ci jamono moo tax ñu man daal dema naan corona ngoog corona jeexagul lu gën a raglu corona far commencé di feeñ eh, eh, xeetu yamb woowu moom bu ñëwee bu bu leen a tàpp rek fam la fam la fete foofu mooy sa bàmmeel waaw moo tax ku ko ci gis fi ne nii ci ind dangay daw xil yu métti métti métti booy daw nag di daw di daw ba mu jot la bu la jotee ba ne la càpp benn yoon pare na ci yow foofu ngay daanoo dangay gis ni nit ñi ni ñuy daanoo par mbooloo ci bedd yi xàmmewul góor xàmmewul jigéen xàmmewul mag xàmmewul ndaw yàllaay waneeti boppam rek xam nga koronaa dañu waxoon ne virus la bu kenn mënta gis lii nag xaw ma yamb la xaw ma lu mu luy turam ndax melokaanu yamb daal la gën a joxe waaye moom itam ñëw na participer ci armée yàlla bi kenn xamagul nag fu mu jëm kenn xamagul it fuy seen soqeekoo kaay loolu moom moo tax nañu nañu gën a bàyyi xel suñ borom subhanahu wa bi ma ko bi ma ko gisee rek sama xel daf ne daf ne yar ci alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil xëy na kee dafa yoroonu doj bu ñëwee eh, tàbbal doj bi ci kaw jëmm ji jëmm ji seey daggutoo rab waa ngi nii mën nga ko won bokk yi mu nga jëmm ji seey waaye kii moom yorul doj moom moom yorul wenn doj aw làbbam rek la yor fettukaayam mën a fett mbooloo picc mee dañ ko waxoon ne ko demal nga rey soldaar sàngam doy na picc mu nekk rey kenn waaye rab wii mu leen won nii moom moom mbooloo la mën a faagaagal moom te te day naaw moom it day naaw day naaw te fu ne càpp noo mën a toll moom foofu ngay daanu kon suñ boroom lépp lu mu lay nettali ci alquran léegoo léeg mu wan la lu lu loo xam ne mën nga caa sukkandiku e, ba gëm lam la doon wax maanaam dana ko gën a confirmer boog ñun moom amuñ sikki sàkk ci wax yàlla subhaanahu wa moo tax mu ne alam tara xanaa gisuloo yow mi nuy waxal yow itam ñun ñii ah kay ndax nett li ba ñëw na ci ñun bàyyi ko ci borom asamaan ak suuf buñ ca tegul bët it mel na ni teg nañ ca bët kay fa faala ana naka la jëflante woon rabbuka sa borom bi ashaabil fiil ak ñooñ ñey wa ñey di tegtale symbole doole force picc di lu néew doole kon na sa xel dal yow yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. loolu lay tekki na sa xel dal ka aaroon kaaba ga moo la yónni te nam aare woon kaaba ga kaaraange googu la la dig ci wallahu yasimuka min an naas moo tax pexe mu nekk fexeel nañ ko ko pour euh, ab mission bañ a sotti waaye mënuñ ca dara nag saar wu mel nii boo koy jàng day dalal sa xel yow daaya bi ci doole yi ngay jàkkaar lool ci àdduna doole yii mu nekk ay doole yi mbindeef dootoo leen gis déedéet ka bind doole yooyu yaw moom nga gis waa ka bind ñooña cëral leen tuuti ci as ndoole yow kookee nga gis yow waaw doolem moom ngay bàyyi xel moo lay yiir moo lay yiir dooley mbindeef yii dooley mbindeef yi ñàkk solo yii mooy taxit bu boobaa dootoo am déception ci ne ah lii nuy jéem kat mën naa taxaw dootoo am déception saar wi boo ko jàngee ah gis ab lël xëy xëy daanu nekk ay cadavre maanaam nekk ay néew te la leen daane du ay soldaar yoo jàmmaarloog ñoom yori ngànnaay déedéet ay njanaaw rek la yuy ñëw daaneel leen dem seen yoon ana njanaaw yooyu newuñ fi ba tey ah ana leen bindoon newut fi ba tey ah kay ka leen joxoon ndigal ne leen dem leen ngeen faagaagal doole yu rëy yële newut fi ba tey ah tey la fi gën a ne ba tey mu ngi fi ah kon ka aaroon dëgg démb ka bàyyi woon borom doole ñu dem ba naw seen bopp rëy rëylu ba ne léegi néegub yàlla bee daal soof na leen ci kaw suuf daf fiy jóg ñu jógoon ne yoo dañ koy màbbi mu yebal picc yi mu alag leen ba tey ji mooy allah rabbul izzati jalla wa ala moo fi nekk ak ñun ba tey moo tax li ñuy tuddee ay doole yi nekk ci loxol première puissance mondiale deuxième puissance mondiale moo xam Amérique la wala siin la wala yeneen yu mën a doon doole yooya du du yiir bëtu jullit bi ci gis doole yàlla waa déedéet subhanahu wa taala mbokk yi coronavirus bi tey nga xam ne jaaxal na doole yooyu yépp gis ngeen ko de armée yi armée yi ak soldats yi maanaam soldats yeeg euh, gendarmerie yeeg euh, police yi ñoom ñëpp fi mu ne corona ñëw na ne leen eh, jël leen ay morceau takk ci seen bët yi ñu takk corps médical bi corona ñëw na ne leen sol leen yére yu jot bu dara feeñati ci seen yaram ñu daldi di solu comme la ko yàlla santaane woon ñu bañ corona ñëw na forcé leen ko te corona du lu ñuy teg bët waaw wa maa ya'lamu junuuda rabbika illa huwa wa maa hiya illa zikra lil basar corps médical bi nee na leen dee leen soloo nii ñu ne faw ñu soloo ko faw de waaw gants yeeg yépp yaram du feeñ bopp yi sax muur leen ko ñu muur ba ko yàlla def loo ñoom jigéen ñi ca biir corps médical ba dañoo bañoon dégg naa sax am na ci ay kër docteur yoo xam ne boo fa nekkoon di muuru dañ lay yéjje ka tuutal ak sewal tey nag ñoom ñëpp muuru nañ te muuraaykat li ci gën a yéeme góor ñaay jigéen ñi ñëpp muuru ñoom ñëpp xam nga muuraayu sariya gi da daan ñëw ne la sax bu la neexee mën ngaa bàyyi xar kanam bi waaye corona dafa dafa ñëw ne déedéet muur leen bakkan bi nga xam ne ña daan mutaxajibaat ya suñ ko masaan def dañ naan waaw ñii ñoo ñemew tàngoor ma yéen ñii nu nuy noyyee policier gendarme douane yéen ñëpp dey yéen ñi daan laajte nu ñuy noyyee tey masque yaa ngoog xam ngeen na gaa yi daan na soxna ya daan nooyee allahu akbar mbedd yii ak ñoo musique bi musique bu xaraam bi tànqaloon guddi kenn du mën a nelaw kundung kundung corona ñëw na joxe ndigal ne tëgg meeg sabar yeeg baal yeeg yépp na tëj gannaaw bu yàlla santaanee ñu bañ yàlla yebal as mbindeefam su tuuti mu ñëw santaane ñu tëj baar ya ah, doole yàlla feeñut foofu ah kay mu ngoog doole yàlla jooju nag moo feeñ fii keroog ci ci xissatu abraha waaw gis nga joxe loxo bi sëñ baara nee na joxe loxo diggante góor ak ku jigéen xam nga jigéen fu mu la fekkaan rek ne la jàpp loxo waaye fi mu ne nii bu bu la bu la jubee naa salaamaaleykum waaw yooyu itam nga ne salaamaaleykum kenn du jox moroom ma loxo de corona ko tere corona as mbindeef su law la soo xam ne suñ borom moo ko bind mënuñ koo teg bët waaye ordre yi muy joxe daal moom respecté rek ministre yéeg président yeeg yépp nee na leen jël leen seeni masque ñu jël masque yi takk laa ilaha illallah aha bu ñu gisul yàlla yi gis nañ maanaam ñu ngi dund ak ay ndawam yi yëpp nag boo gisee suñ borom di ko wane mooy dalal sa xel yow mi nga xam ne yow la ñuy néewal doole di la terroriser pour bëgg laa bàyyi bàyyiloo sa pas-pas ngëbal de ngëbal sa pas-pas de jafandul de ngoyal de borom asamaan ak suuf ñëw na wane boppam force yi àdduna bi yëpp négatif nañ ci kanam corona tout chinois yeeg seen force yu rëy yi ah nañ ko jëfandikoo ci corona nañ taal bomb yi na avion de guerre yi déqi ne dañ fiy jëlee corona <laughs> hazahu wallah kii mooy suñu borom subhanahu wa taala yii nag bu koy wane pour euh, dalal suñu xel la ci ne bu cëpp-cëpp ji bëree moom la neex walaw yashaau llahu lan minhum walakin li yabluwa baadakum bi baadi moo tax nanu gën a jafandu ci sunu téere bi di kitaabullahi subhanahu wa taala abrahato ngoog jël na ay pexeem jël na ay lëlëm nee nañu yoo day màbbi kaaba ga waa kaaba gaa ngoog alam yajal ndax suñ borom defut kaydahum seen pexe ya fi todd tadlil ci neen ci cànkute aha kay pexe yu rëy yëpp nasax na ana najaasi yu ma ko yebaloon nag borom buur bu mag ba nga xam ne moo nekkoon ci ay Éthiopie ndax dégg ngeen ñu ne ba ba armée bee deexee def na renfort ne nañ demaat sàppali dàbbali mukk moom kay rek ne fa toog ca pale ba la toog nii ngay jëm mucc tey xalaat naan mbaa picc yi duñ fi agsi mbaa picc yi duñ fi agsi comme ni chef d'état yi yëpp toogee tey làqutu ci seeni pale naan mbaa corona du fi dugg si nañ bàyyi xeex yàlla nañ bàyyi xeex diine yàlla ji subhanahu wa taala ah, na abrahatu amee woon vulnérabilité maanaam lottu ak ak nasax noonu tey ni la force àdduna bi yépp amee vulnérabilité muy lot ak nasax ci kanam corona ba tey jii kat amaguñu e, lu leen mën a teqaleeg virus bi moom mu ngi dem rek mu ngi dem rek waaye nag bu ñu tiit ñun jullit ñoo waxoon naa fi keroog ci xutba gi ne ñun amuñ problème mu dund ak virus ndax gëm nañ ne e, kalay ka lay aar ca virus ba moom mu ngi fi mu ngi nekk ak yow fépp waaye kay yebal virus ba it nag bu ne demal ci jëmmi sëñ bee kenn mënu ca dara nag moom yéen a ngi fàttaliku nettali suñu suñu rakk ji seex ndaw mu ne bi ñuy nekk gune di yelwaan ci njaareem dañoo dugg ci genn kër fekk boobu jamonoy mbas la woon ku ci mbas nii dañ lay yóbbu ci ruq di la fa andil sa lekk bu dee taalibe yi bu ñu ñëwee ci ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbas mi dañuy sàcc liñ leen di lekk yi leen di jox dañ koy sàcc di di ko lekk am ci góor gu baax goo xam ne dafa ñëw fekk xale yi sàcc xale yi taalibe yi sàcc li xale bi desaloon ci mber mu ne ko ana ñam ba mu ne ko taalibe yee ko jël mu ne ko taalibeen mu ne ko taalibeen kër sëñ Mor yi mu ne ko mu nee nañu mu génn rek taal taalu bootam yaakaar na ne xale yi dee nañ bi mu ñëwee wax ko sëñ Mor ne ko te sa xale yi day dangay ngay seet seen yàlla yi daf ci am koo xam ne dafa jël lekku ñee nga xam ne dañoo jot ci mbas mi sëñ Mor ne ko dara yàlla leen di aar <laughs> bàyyi leen ñu lekk yàlla leen di ar gis nga ko de xale booba ndeysaan de dee na ca mbas ma waaye ka ñëwoon moom sax ci lekk ndesit wa lekk ko moom ma nga gàddu papatam di topp mbedd di jaare mi di yelwaan dem ak ko ñëw mu nga gis nga nii ñu ñuy bëgg a bëgg ñoo xañ am ngëm yàlla gi nan ko làkk nan bañ ndax mbir mi kat day miiru nag leneen dem ba di ñu ragal loo corona ba far ñu ñeme loo yàlla man de loolu laa gis léegi waaw te corona yorul ndee yàlla yor ndee dem ba di ñu ragal loo corona ba bëgg ñoo bàyyi loo symbole yu mag yii di jàkka ak jumaa yi yépp ngir ragal lan tase faa corona mu rey ñu corona yorul sunu bakkan yi déedéet te li ma jaaxal ñoom jàkka yi rek la ñuy wax kenn feebareegut ci jàkka ñu ne corona ba ci jàkka ji la ko jëlee de kon mbir mi leneen a ngi ci laxas bismillah alam yajal ndax defut kay dawum seen pexe ya fii tadlilin ci neen a ah, kay de pexe yii lalu ci corona yi noonu lay nekkee neen bu soobee yàlla aha commencé na nag di neen aha commencé na di neen bu baax suñ borom nee na wa arsala yebal na alayhim ci ñoom tayran ay njanaaw ababil yu di mbooloo ababil mooy jamaatin ababil yu di mbooloo tarmihim ñu ngay ñëw di leen sànni bi xijaaratin ci ay doj min si jiilin yu bàyyi ko ca sawaraaw si jiil fa jaalahum njanaaw ya def na leen def na ñooñee walla nga ne suñ borom def na mbooloom abrahatuma ka asfin ñaari firi am na ci ñii na ka asfin comme ngóobee fukk suuna maanaam xappeef xappeefu gataxu suuna waaye asfu it dañ koy xool muy firi cuqu makulin yoo xam ne yu nu lekk seen pepp ma la waaw nanuy eh, teqale cuq ya ak pepp ma wëcci cuq ya ña nga fële nekkub jóor noonu la mboolooy abrahatu ya nekkee ay jóor ca àll ba militaires yi nekk ay jóor ñi nekk asfin comme xappeef makuulin nga di gu ñu lekk ay su dugubam ba tey itam nafsu say i rek na borom tool ba def eh, suuna sa góob ko maanaam xapp ko mu ne la siim na la lëlub abrahatu ba eh, mujjee la siim rek kon armée àdduna yaa ngóog doole yi àdduna yaa ngóog doole ji ju fi jiitu woon la doon xeex diina doon xeex jàkka yàlla doon xeex néegu suñ borom fii la ko suñ borom mu jël yonentu alayhi salaatu wasalaam suñ borom di ko ko nettali pour dalal xelam ci na ko jeneen doole ju jógit nag pour pour aar pour pour màbbu diina suñ borom dana jëflante ak ñoom comme nee mu jëflante woon ak abrahatu ak mbooloom ma kon na ñu yàlla mayu mayub ngëm yal nañu suñ borom subhanahu wa taala boole ca ña nga xam ne dara du leen mën a xiixaan ba bàyyi loo leen yoon wax ba teggiloo leen seen tànk ca yoon wax hada wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Fafa TV